nekk ndawi président Macky Sall ndawi parti APR li ñu fi dajale tey mooy benn point de presse boo xamante ne ñun itam dañ ciy wax véritablement suñu gis-gis parce que jàpp nañ ne wax ji yàgg nañ ko di wax yàgg nañ ko di agité mais depuis lors dañ ca noppi woon parce que ñun dañu am discipline de partie dañoo jàpp ne mbir mi c'est une affaire privée une affaire boo xamante ne ça oppose deux Sénégalais ça oppose deux citoyens muy l'honorable député Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne mooy Adji Sarr ku ci wax keneen wala ñi ci wax ñeneen jàpp nañ ne seen yoon waru ci nekk gis nañ nag fan yi yëpp ñoo ngi ñuy saaga ci réseau sociaux yi ñoo ngi ñuy wax lu nekk ñu noppi dara gënu ko metti nag ñuy dal sa leader di président Macky di ko dale Ousmane Sonko ba ci suuf ku jóg ne complot dal ci président Macky Sall depuis ñoo ngi noppi xam leen ne suñu tekk tekkaaral googu naqari nañu lool parce que tey jàpp nañ ne sa leader buñ koy attaqué da nga war a taxaw mais désormais œil pour œil dent pour dans la je vais vous dire que yoonu président de la république nekkul ci affaire boobu bañ na ko ba ñun ak moom sénégalais yi ak moom ñoo yëgandoo affaire bi ministre de la justice keroog wax na ko à l'assemblée nee na bi mu ko yëgalee le président Macky Sall il a été surpris te bëggulu ko woon kenn même son pur ennemi donc ñun ci waxam jooju la ñu mën a tënku di leen wax ne ñun la jeunesse républicaine nous sommes prêts à tout il faut que ces gens-là arrêtent d'insulter les gens à longueur de journée il faut qu'ils arrêtent de menacer les gens à longueur de journée on prend en témoin le peuple mais on prend en témoin les Sénégalais il faut qu'ils arrêtent suñu réew mi kenn mënu ko taal képp ku ko jéem képp ku ko jéem yaa ngi ci erreur te duñ la bàyyi nga koy taal beneen mbir mi c'est par rapport toujours dossier bi Ousmane nee na dafa bari woon ay maladies yu ko daloon bi muy njëkk a def conférence de presse mais barke Dembo Ndiaye nee na dara dalu ko ñun dañ koy bàyyi ak sénégalais yi contradiction yu mu nekkee depuis début ba léegi dañ koy bàyyi ak sénégalais yi ñu jugé ñun newuñu ci caaxaan ñun ci liggéey lañ nekk président de la république ci moom la ñuy roye moo tax ngeen gis ne la jeunesse républicaine c'est une jeunesse responsable c'est une jeunesse boo xamante ne c'est une jeunesse disciplinée saagawuñu kenn xasuñu kenn wante képp ku ñu bëgg a piétiner wala képp ku ñu ku bëgg a jaar suñu kaw bu soobee yàlla bu ñu bu ñu la geestoo da nga daw parce que nous sommes déterminés et à défendre notre leader. beneen mbir mi gis nañ ne barke démb gis nañ ne ñetti leader dem nañ seeti ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko nee nañ dañ koy jàppale te ñun jàpp nañ ne ñooñu. muy Mamadou Diop Decroix nee na dafa dem jàppale ji Ousmane Sonko mais dama jàpp ne kooku dafa fàtte parce que barki démb la fi taxaw ne ñun pouvoir bi nañ ko jox xaalis mu démonter Ousmane Sonko ñun ñoo bañ kooku dara intéressé wu ko lu dul intérêt boppam intérêt sénégalais yi ñoruñ ko boo jàppee ki nga xamante ne mooy Aïda Mbodj mais Aïda Mbodj fii la taxaw ne Ousmane Sonko motu ko xëy motu ko gont buñ ko dugalee ci système bi mu démontel ñu ko ñun ñoo bañ parce que jàpp nañ ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk muy Ousmane Sonko muy président Macky Sall mu muy yéen ñii nga xam ne yéen ay taskatu xibaar yi ak ñëpp ñun ñoo bokk Sénégal te du ñu bëgg Sénégal vraiment nit ñi di ko taal ñu ci teg suñuy gët mais Malick Gakou nee na dafa seeti usmaan Sonko dama leen di wax ne ñii ñoo gën a bañ Ousmane Sonko. kenn ci ñoom bëggul Ousmane Sonko intérêt yi seeni intérêt bopp ñoo leen tax a jóg Malick Gakou bu jógee dem jàppale Ousmane Sonko c'est parce que li mu bëggoon amagu ko li mu bëggoon mooy intégrer li nga xamante ne mooy le cabinet di président de la République aujourd'hui amu ko moo ngi toog xaar mu xaddi ci xaar bi mu ne day dem jàppale ji Ousmane Sonko ñu bëri loolu lañ nekkee ci dëkk bi parce que nee nañ dañ leen di dugal ci système bi dañ leen di jox des moyens wala ñu dem jàppale ji Ousmane Sonko est-ce que ñooñu Sénégal ñor na leen est-ce que ñooñu intérêt crypto personnel taxu leen a jóg donc sur ce chers partenaires de la presse je voudrais m'en limiter là pour vous dire que désormais c'est œil pour œil, dent pour dent. Je vous remercie.